ahlan bikum tey ci àllarba ji njiiti réew bu Sénégal fa nara dem ca réew Mauritanie xamal fa tukkeem bu njëkk ci génn réew bu Sénégal ginnaaw buñ ko falee lii yéene kaay ne moom Bassirou jamaay fay moomu Nouakchott ba mu jëm am na lu ko waral de magaay gay xam-xam màcc ci wàllu koom ne jarul laajte pétrole ak gaz bii nga xam ne réewum Sénégal fu ko siq ak réewum Mauritanie ñu war koo sulli ci suñ géej gi loolu la bëgg a dem waxtaanee ko ak ñoom contrat bi gars yi signé woon ak naka lay doxee naka noona tamit wàllu napp gi jën yi géej gi wàllu kaaraange lii yëpp moo waral mu dem Mauritanie laas yéen a kaay na ko waaye pétrole bi ak gaz bi moo gën a tax mu dem Mauritanie te moo yéen a kaay ne jomaay dem tey Mauritanie génneem bu njëkk bitim réew président Macky Sall ak Abdoulaye Wade ak ñooñu ñoom bi ñu leen falee rek France la njëkk dem moom nag mu bàyyi fi France dem ci suñ dëkkandoo yi loolu am na lu muy junj loolu fa xam lu muy junj lii le quotidien yéen a kaay ne man daal faa seetlu ne mi ngi amal ay tukki di génn waaye boolewut ko ak wax ju bari waxuma ay xumbaay ak yàq xaalis déedéet su du bu leen fàttee conseil des ministres gouvernement Sonko bu bees bii fa ñoo yi de bés bi yéen a kaay na ko voilà faa leen di wax ne man faa séq waxtaan ak àlla kan fa bokk ci cabinet premier ministre Ousmane Sonko waaye tey xàlla dafa taj kaas ya la ñuy laam-laamee daal moom ca digg ba la jaar wax ko ayaw seetal bokk na ca lam wax nee na maa bëgg sénégalais seen xel dal nee na yéen sénégalais faa bëgg ngeen gëm ma ci lii ma leen di wax te mooy ne 94 milliards yu Mamour Diallo yi fay leer naññ 29 milliards Prodac Mambay Niang fay leer naññ France yi nekk Sénégal fañ fiy jógee ñibbi seen réew li wute la Sonko nag ak Cheikh Anta ak Mamadou Dia lépp wax na ko ci biir yéen a kaay ba enquête yéen a kaay fa dikkaat ak ñun ci passeport diplomatique Sénégal yi nga xam ne fi mu toll nii fañ koy méngale ak këyit yi ñu jaayee caaf ndax ñàkk valeur golo gu jóg rek ñu jox la passeport diplomatique ngay tëb di dal moom ci kaw garab yi ak a dugg ci xàll bi loolu foog ngeen a jàmm la passeport diplomatique fa am ñu ko war a yelloo te lu ji njaag nag njiitam Macky Sall mooy njaag surtout bi nguuram gi waaj a jeex a kaay ci déclaration politique a kaay na ko ak jomaay fañ ko bëgg a tas au conseil conseil économique assemblée nationale du yomb de ndax waa Pastef fi seen député ya bëri wuñ ci assemblée nationale ci député yi wote ngir ñu mën a tas ACT bu dee assemblée nationale nag pour ñu mën koo tas faaw ñu xaar ba weeru septembre jot <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne aéroport international Blaise Diagne gars yi fañ ko tàmbale audité càmbar yorin wa direct news ne mbaadu gars yi fa ñoo xalal caaxaanuñ de fi mu toll nii ñu ngi lijjanti ko lañ bët ak a képp ku ñu dénkoon xalalu réew mi faa la ci jox misaal am na ñaari DG directeur général yoo xam ne Ousmane Sonko fa leen a auditionné laaj leen lu jëm ci building administrative xalal ju bëri jëñ fa dugal ak defaraat baak lañ waxoon na fa lakk fa lakk ga bàyyee koo xaay ba ñu wax ne fañ ko saa pasar pasare lépp fa bëgg leer yoor yoor a kaay na ko faala ci yokkal port bu Dakar yorin bu bon a bon moo fa xam pasar xalalu askan wi ay nit ñoo xam ne fañ leen di jël ñuy fayeku te amuñ ci këy rek lañ am ñun fa jël jëlin wu bon marché gré à gré oto 4 x paree di ko pasar pasaree loolu yëpp gars yi fañ koy leeral ba tey a ne système de pointage maanaam képp kuy liggéeyal nguur gi fa ngay teel xëy huit ba sa heure wàcc nag moo xam seize heures lu munti doon soo xëysee fa am machine booy bës sa loxo bi mu wane ne xëy nga sooy wàcc tamit fa ngay pointé ñu xam heure bi nga wàcc fi mu caaxaan faaxee de heure bu la neex nga liggéey ak heure bu la neex nga wàcc loolu fay jeex de te boobu tàmbali koy xaar bokk na ci ay défeem mooy tabax ay infrastructure ay stade ak yeneen yi ni mel leer nen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na ñaar téeméer liggéeykat yu nekkoon ca post seen directeur ba fare na kat ji dàq le public yéen a kaay moo ñu ko xamal ba tax syndicaliste ya ña ngay yuuxu na lii tooxi doona lu musta am te jaarut yoon informateur yéen a kaay ñu ko xamal la mu ñu xamal moom laas yéen a kaay mooy ñi am jàngoroy roñoo te ñu leen di defal jalis ca angaaru ujaaj ja tolluwaay moom la ñuy xamal la mu ñu moom bés bi yéen a kaay mooy Abdoulaye Bathily nekkatut envoi spécial ONU ca Libye bàyyi na postom ba ki bàyyi poste président nag tàmbali beneen poste muy envoyé spécial bu réewum France 4P mooy njiitëram Macky Sall informateur yéen a tàmbali na liggéeyam de ndax fa dem ca Amérique dajee na ak njiital mbootaayu xeet ya waxtaan ci liggéey bu bees bi ko président bu France dénk turbine yéen a kaay man fay laajte diggante njiiti réew mi woon Macky Sall ak Amadou Ba xana kan moo war moromam député Abdou Bara Dolly mel ko fi li taxoon nee na njiitëram Macky Sall di yàkkamti def loi amnistie gaaw négocier ak Sonko ak ni mel loolu yëpp la wax ca Vox Populi ba tey yéene kaay bi na jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon Ousmane Diagne li koy xaar te mu war koo lijjanti moo yorin wu sell ci nguur gi jëlee fi ger ak këppu kees xalalu askan wi ak andi tamit coppite ci institution yi ki bëgg coppite ci yenn doxalin yi du kenn ku may honorable député Guy Marius fa wax na suukaru koor a jox cent mille francs oo ko jox ko cent mille francs ma ko Sall ay tooxi doona ci wàllu milliards yu du xaaj jeex yu ñu doon pasar pasare moo fa amoon l'observateur mel ni ku naan ko waaye loolu jeex na ndax ña doon pasar pasare milliards ministre Macky Sall yi fi mu nii beneen dund moom la dund ba tey yéen a kaay bi fa ñoo xamal ne police bu Sénégal fa nar a am ak coppite ca ñu ko jiite ñu jiite opposition bu Sénégal seen xar ak taxawaay bi ñu war a xam moom la info yéen a kaay xëy di ñu xamal wane foto Amadou Ba ak Karim Wade tàggat di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi ba mu tàll ñere xawtu mu dee fa koo ngàdd rëkk wulli mbuqi ñeenti bal ci benn démbale fa yegg supporter ya di ko saaga mu ne leen tey rek ma rey leen moo njëkk a lakk caax ya ba pare am penalty Mbappé dugal ñaar supporter ya di jooy entraîneur Barça mer ba xolu di kajj ay carton ñu carton rouge ko na ko doxal foy remontada bañ defoon Paris Paris fayeeku na ko kon Barça fori nañ new ñeneen ñu fori new mooy Atlético Madrid moom it Dortmund fa koo jàpp di ko mbuqi di ko mbuqi ba mu bëgg a dee ñeenti bal ci ñaar tey ci àllarba ji nag équipe bu mag a mag bi Real Madrid fay dem fekki Man <laughs> final la de cinquante cinquante ku ne mën naa mbuqi sa morom yal na Real mbuqi rek waaye ay City biir dëkkam fay ragal mu def ñu ko de Arsenal it fay fekk Bayern turbine yéen a kaay na voilà wàllu football yooyu Paris foot ak xbet ak ndaw ñi fi mu toll nii xam nga lu ñu xewal toog muy dox ca kër naar bi maanaam ndaw ñi moom ñi ngi ci naar bi rek di xbet rek te léeg-léeg fa ñuy bëgg a rey naar bi nag fañ koy gañe gañe yu bëri surtout fan yi moom Ligue des champions bii ay diw mooy gañe bu ngay ñaan bi yu bëri rek ak jël code bu tuuti ay code de ñoom seen waaye fi jaay bëggee tàllal ay code mille ak deux